choisir sama xarit Mohamed Ndao Tyson le nouvel Saliou Ba bàyyil sama Tyson Tyson moo sa waaw dama naan kan Tyson moo sa candidat yow ba nga nekkee reporter mën ngaa interview euh, Tyson ñaata yoon bari na yow mi wallaay la ko fekk waaye waaye nga ko na ko Tyson dañu def émission da nga leen dajee ci programme kese bàyyi leen Mohamed Ndao kooku moo révolutionné lamb ji de génération bul faale Mouhamed Ndao Tyson maa koy nuyu doomu Saalum boobu kenn kooku Tyson kenn du moom ñaari mbër yaa ngoog ja yaa xari Bombardier Tivaouane Peulh ak yaa xari yaa xari maara yaa mu Ngunjaan yaa mu Liberté 4 yaa xare ak bombardier yaa xare ngay dóor yaa xare koy dóor hyperkit yaa xare dañ ne daan daan nañu yaa xadi daan nañu yaa xadi daan nañu mbërëm yàgg maar ma tànk ba la ñu tibb yaa xadi daan nañu ko daan nañu yaa xadi ba mu toog yàgg maar daan nañu sa mbër ma hee eh, mbërëm liberté 4 ma Pape Faye daan nañ ko bombardier daan na eh, yaa xadi waay bombardier bu toowoon pël ko daan mu ngi koy may loxo. yaa xadi daanu na yaa xadi daanu na Bombardier Tivaouane Peulh ko daan Birame a ngi koy jël si Birame a koy jël si daanu nga de daanu nga de yaa xadi loo wax yaa xadi da toog dañ laa dëj dañ koo dëj mu dëju yaa xadi da toog yaa xadi da toog yaa xari da ngaa toog yaa xari da ngaa toog yaa xaree ngoog ndeysaan yaa xaree ngoog percam